dañu ñëwoon euh, ak délégation bépp Andal. ma àndal ak euh, xam ngeen ne tey euh, dañu indi won tay li tafsir xam nga ne suñu mam bu baax bi monsieur Ousmane Deme boo xam ne xam nañ ko si gesto, ak lu mu bind si transfert al tey liggéey boobu la ñu pare fi tay ci si président mo sant ñu et via la direction du livre ak direction bëggoon le comité de lecture bu ñu defoon sur place ñooñu ñu pare ñu ñëw def tey restitution boobu pour waa Sokone. tey lu ëpp junne ak juróom-ñett fukk ak juróom tom la ñu indi woon fii si Tapsiri. objectif bi mooy xam ngeen ne euh, sur le plan scientifique nga xool sur le plan connaissance de la traduction du Coran foog naa livre bi référence pour la umma islamique benn référence la tam si képp koo xam ne jullit nga si scientifique mondial téereeb alaaji amat dem bi bokk na ci bëgg-bëggam ni xam li xam-xam lu xam-xam ak lan mooy valeuru xam-xam téereem bi bind na ko 1950 pare na booba tubaab bu ñu waxoon mbag moo bind benn téere 1933 mu ne Pluton tubaab yi dañuy jël nañ ko misaal ci juróom-ñaari asamaan benn asamaan ñett Ben américain bind mu ne Pluton platine la Pluton platine la y a Dem bind ne calcul yi def yépp gisul fenn fu Pluton mën a nekkee planète planète terrain bi 1950 la pare ba loolu pare 2006 congrès mondial des astronomes daje Copenhague nous de Pluton du planète de ko avons Nous ne lu tax parce que degré bi ni incliné de incliné planète ala dem loolu Nous 1949 50 2500 scientifiques, nous ont wax loolee la góor Nous avons booba xamul kañ la looloo tax ma dugg la ci suma xel mu gàtt waaye ci suma njort mu rafet dama ne suma ma yàllaay tette ba ma dem ministère de la culture ñu def lii ni naan baax na bokkoon na ci mébétoog alaaji am na dem ak ñaanam kenn mënu may góom leen loolu xam nga mënoon nañ ma yóbbu feneen keroog ba ma àndee ak Baye Omar Ngalu Basir yaa nga fa yaa jël ci kanam président ngeen jéggal ma bu wax ji guddee waaye dafa dafa am yoo xam ne dafa jaroo 12 mai 2017 la ngeen wax li leen soxal kër gi ak li ngeen bëgg mu antu muy téere bi yi ci des yëpp boo amee baax na waaye téere bee leen soxal loolu nga wax sant yàlla yonent ba ma juuma mu leen bu soobee yàlla dinaa ci taxaw Abdou Latif jëlal nga boo génnee na nga oo mbañik dinaa ko oo mbalit commencé woon na ci liggéey bi am na ñetti téere mbala ñeent siidu yaay suma seede ak Baye Omar ay doomam muul lañ ko gannaaw ma def ñëwuma ci suma coobare bopp parce que taalibi laa ci kër gi doom laa ci kër gi pour song mbir mi dama ñëw jël instruction président de la république nangoo ko ci làmmiñam wéyal ko ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ndokkeel ci xew-xew bu mag bi di xew-xewu lislaam rawatina muy xew-xew boo xamante ni bu am solo la ci famille Thierno Ahmed Deme Sokone euh, di xew-xew boo xam ne euh, vraiment adduna bi yëpp waroon nañ fi teew fekkee si li nga xamante ni moom la góor gi defal euh, umma islamiya muy loo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moom moo ko wàccee ci jaam ñëpp ñu bokk ko alquran alquran jullit ñi ñëpp la waaye nag lii woykat bi di wax ne maanaam yàlla moo tànn alaaji dem radiallahu anhu mu def ci loo xamante ni maanaam lu yéem dër bu ñuul la ci li nga xamante ni mooy Afrique rawatina ci adduna bi yëpp fu mu dem rek ñu xam ne lii lu wér la alquran la hadis la li jóge ci yonent bi ci saaba yi ba suñ mag ñëpp mooy lu am importance fi mu jaar léegi imam Bachir alaaji Bachir dem léegi nettali na ko ci jamonoy nguur yi fi jaar yëpp ci jamonoy Senghor jamonoy Abdou Diouf jamonoy Abdoulaye Wade ba ñëw ci jamono ji nga xamante ni mooy jamonoy Macky Sall waaye wax na ci euh, lu am solo mooy bu njëkk jëf-def yi amoon na waaye nag def-def bu mel nii moom yombut ci ndax bu njëkk ñu ngi ci doon tawat maanaam ñàkk wérug mbind mi wala yu mel noonu du ci li nga xam ne moom la góor gi bindoon waaye li nga xamante ni ci lañ ko toxalee léeg-léeg euh, topp yi ñoo du mel noonu waaye gis nga bi yoon dañ ut ay commission yoo xamante ni scientifique yoo xamante ni lépp loo xamante ni maanaam ci téere bi la ñu taxawee ko taxawaay yu rafet ba ñu muul ko indi ko fii loolu kon jërëjëf président ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm bu baax a baax a baax a baax lépp ci ne ci wàllu science wàllu économique wàllu nit ñi nu dundam ci jaamu yàlla wala ëllëg àlaxira lépp mu ngi ci téere bi